asalaamaaleykum inton bu Sénégal wax tey ñu dalal fii Maïssa Maïssa nag euh, ñu ngi koy gis ci statut yi gars yi di ko partagé euh, slameur la maanaam taalif Maïssa ma bàyyi la ko nuyoo. waaw maa ngi leen nuyu ayda di nuyu képp koo xam ne mu ngi liggéey Sénégal di nuyu it ñi nga xam ne ñu ngi teewlu waxtaan wi di am mbégte ah, waxtaan ak yow tey fii nii ci jotaay bi. waaw bi mooy sama première interview. alors su ma la doon laaj nga présenté nag sa tur sa jaar-jaar. waaw euh, Maysa Mara moom mooy tur bi donc maa ngi yaroo Jolof juddoo Bambey Bawol donc nekk ndaw loo xam ne dafay jàng nekk itam euh, artiste di yëngu ci wàllum slam donc biñ ci duggee léegi yàgg na yàggul ndax 2017 la ñu xam slam waaye 2019 la ñu génne suñu single bu njëkk boobu ba léegi di ci nab nabi ndànk-ndànk ba tey nag ñu nekk champion du Sénégal slam poésie donc nekk itam ci benn label bu ñu naan Impossible Prod donc di ci commencé di liggéey ndànk-ndànk war ay affaires yoo xam ne ñu ngi koy indi ci kanam incha allah. olof yi xoot na de dama bëgg def lii loo xam ne sama passion la déjà. Hmm. waaw parce que boo xoolee ci ci njëlbeen gi maa ngi doon def li naan comédie musicale. donc maa ngi ko xamee woon ci INSUP Afrique euh, école bi ma nekkoon ak suñu benn benn prof maa ngi koy nuyu de passage monsieur saar la tudd moo ma encadré woon ci comédie musicale donc am loo xam ne defoon na ko ci man donc foofu laa tàmbalee nag di bëgg aar ci laa dem ba 2017 donc ci laa xam silaam gis ko ci benn atelier bu ñu ma invité woon donc ma bind benn yoon mu neex ma nekk ci nag tàmbalee di dox ndànk-ndànk ba tey jii ma commencé di bind ba tey gi génn ci livre boo xam ne silaam la def ci it single am ci yeneen projet yoo xam ne bëgg nañ ko teg incha allah ci ci kanam tuuti. waaw première slam bi eh, su ma juumul ci ci Afrique la woon donc ci ci Afrique la woon ma defoon ko bindoon ko amoon it sama benn benn grand bu ñu naan El Hadj Ndongo Coy ma envoyé ko ko wan ko ko mu ne ma ta poésie est enfantine maa ngi koy fal bi ma ko waxee nag ma xawoon trop ci la ma sax xawoon na xelal ne ma bàyyi la poésie nga def compte. fekk jamono jooju noonu maa ngi doon def compte en même temps ay compte pour pour ah donc waaw en wolof dem ci ay école di leen léebal affaire yu mel noonu donc ci la ma wax naa des ci compte bi déedéet comme que nee ma ta poésie et enfantine naa fexe ba nga xam ne tey boo defatee poésie wala defatee taalif nit ñi bu ñu ko déggee dinañ xam ne lii nii nekkul kàddu xale waaye kàddu mag la te saa su nekk ñu mun cee fekk njëriñ bu baax a baax a baax mm-hmm. waaw donc foofu laa nekk di continuer continuer sama sama jàng. kon olof bi parce que ñu bëri dañuy dañuy dañ naan ñuy jàng français <laughs> olof bi duñ ko mën a làkk mënuñu wax boole boolewuñ ci français te yow sànq ba tey yaa ngi wax <laughs> benn mot français dégg ah, olof bi euh, nan la da nga fi nga juddoo la moo tax nga mën a maîtriser langue bi wala. waaw wolof bi ñaar yëpp la ci fi ma juddoo la. waaye itam def naa ci ay ay gëstu maanaam ay luññutu di jéem a xool saa su nekk lépp loo xam ne maa ngi ko xam ci ci ci français te xaw ma ko ci wolof may jéem a wut ay téere yoo xam ne dina ma dina ma dina ma dimbale ci loolu ba nga xam ne tey lépp loo xam ne tey xaw ma ko woon ma mun koo xam jëm ci làkk wi am itam ay téere yoo xam ne maa ngi ci liggéey di ko dawal maanaam di ko liir saa su nekk te heure booy dawal téere da ngay gis ne sa vocabulaire maanaam baataan wala dafay gën a yokk da xam ay baat yu bees di xam itam yeneen i yoo xam ne dina la permettre yow tey lépp looy rek nga mën koo wax ba mu ba mu jub ko ci wolof bi te am ci loo xam ne xëy na fi fi ma yaroo fa ko jëlee muy sama maam bi ma yar moom it doon koo xam ne saa su nekk daf may yedd léegi ci yedd yooyu nag day doon ay baat yoo xam ne dafay dafay dugg sa xel te bu duggee sa xel saa su nekk ngay xalaat dangay bëgg génne ko donc bu ko xol bi génnee rek xel bi segg ko nga daal di koy génne jox ko askan wi su ko defee ku ci nekk rek jëlee ci li nga xam ne njëriñam lay doon bu baax a baax. yaa ngi wax sànq sa premier poésie bi nga bind danga ko jox ñu xaw la mhm. mhm. njëkk a bind boo xam ne nag. Mhm. di nga bokk na ci bi nga xam ne moom laa gën a bëgg te ci ci wolof la maa ngi ko tuddee bul xàddi. donc muy benn taarif boo xam ne bind naa ko euh, xaw na yàgg trop nag xëy na nit ñi dañ koy soo gis ci sama plateforme yi nga xam ne moom laa am mais xaw na yàgg boobu laa njëkk bind ndax boo xoolee ci benn ay yëg-yëg la boo xam ne newoon na ci man donc ma ne woon naa ko génne bokk ak nit ñi su ko defee ku ci nekk mën cee gis boppam ndax ni may xoolee keneen laay xoolee sama bopp ndax jàpp naa li may dund moom la kenn di dund xëy na bu bokkul bu bokkul dëggantaan ni événement yeeg xew-xew yi waaye tamit dëggantaan au fond yëg-yëg bi benn lay doon saa su nekk mhm. moo waral ñu koy bind di ko génne muy loo xam ne saa su nekk lu ñuy lu ñuy yëg lay doon bu baax mais slam dafa nekk loo xam ne nag Sénégal dañ koy de plus en plus dañ koy gën a délaissé mhm. dañ ko xaw a bàyyi euh, bu ñu waxee slameur yi sax dañ naan non ñii euh, dañuy kii rek doxatul daal. daal doxatul lu leer ñu bëri ju xamatu xamoon nañ leen mais gisatuñ leen. Mm-hmm. est-ce que yaakaar nga ne exactement que yow di nga changer doon bi ba yóbbu islam boo xam ne fu kawe waaw gëm naa ko bu baax a baax a baax te su ma ko gëmuloon ci du ma ci nekk. ndax dama nit ki moom looy nekk rek danga nga ciy am yitt ju kawe mooy nga am ci ay ambition yoo xam ne ay ambition yu xaw a sori lay doon donc moo tax ñu dugg ci silaam bi gëm ko investir ci def ci suñu dund nag ndax tey yaakaar naa lépp lu ñuy dem rek xool lañ ciy demee waaye xel lañ ciy demee ndaxte tey bi mooy tax tey li ngay bind nit mun koo yëg waaye xel bi mooy tax tey saa su nekk mu doon njëriñ teyit nga xam li ngay bind mu doon loo xam ne saa su nekk day ànd ak yiw moo tax ñu gëm ne mën na dem ndax fépp fu ñu dem rek am lu ñu fa wane da ngay gis ne nit ñi bëgg nañu salaam xëy na ñi ci bëri dañoo xamul dëggantaan li nga xam ne moo ci nekkoon te itam li ñu xaw a nemmeeku mooy tey dafa manqué ay réalisation yoo xam ne xaw na taaru lool ci côté islam bi yoo xam ne xaw na solide pour permettre nit ñi tey ñu bëgg aar bi gëm loolu leen du loo xam ne danga koy imposer mais da ngay affirmer wu wan nañu ne tey yi li nga xam ne moo am ci yeneen aar yi mën na am ci islam bi bañ gën ko yaatal ndax nit ñi bëgg nañ ko te ndaw mën na ko déglu mag mën na ko déglu donc foo ko bëgg a yóbbu rek mën nga ko fa yóbbu baax a baax a baax pour ñu mën ko consommer nga français bi <laughs> <laughs> waaw ba tey ah. dëgg la xam nga loolu eh, li ko waral mooy eh, poésie bi moo tax

dafa gën beneen làkk wala beneen làkk baaxul waaye dañ koy def pour wane ne tey lépp loo xam ne rek maanaam mën nañ ko def ci beneen làkk mu neex nañ ñi wolof itam mën nañ ko def pulaar mën na ko def ak yeneen ak yeneen ak nga xam ne ñu ngi fi mm-hmm. moo tax ñu koy def saa su nekk ci ci ci wolof mais xóotul neex naa neex naa dégg quoi <laughs> neex naa dégg ku la xool ne jeune nga mm-hmm. euh, nga teel a am nag euh, prix mën naa ko wax ñu sacré la champion d'Afrique mm-hmm. question JT la nag may sa laa invité mu envoyé ma question yu bari <laughs> xam nga euh, ñu sacré la lan nga def exactement. ba mm-hmm. ak foofu. waaw euh, liggéey la parce que mosuñoo toog. peut-être nga fàttali ñu ñaata at nga def si si si comme islam. waaw ci ci islam waaw laa ko laa xam islam 2019 laa génne sama sama single bu njëkk. donc muy loo xam ne liggéey la parce que ñu toog di xoolee. depuis ñu dugg ci islam ba léegi donc ñu ngi ñu ngi ñu ngi liggéey ñu ngi def ay prestations ñu ngi répété si suñu ay néeg donc ñu ngi répété aussi ay ci yoo xam ne ñu ngi koy mëne donc participer nañu aussi ci ay ci ay ateliers yoo xam ne atelier d'écriture la ci atelier yoo xam ne dafa lay permettre tey ni ngay jouer sur scène yoo xam ne récemment maison de maison de l'oralité bu docteur Massamba Gueye aussi organisé na ko donc muy yoo xam ne heure bu ñu fa demee rek dañuy jàng man-man suñu côté ni ñuy jouer ci a am am li am ak aussi écriture bi gëstu bi parce que coono bi nga ciy daj rek saa su nekk moom mooy ñëwaat fekk si la ci li nga xam ne moom ngay def te loolu tamit boo demee ci yeneen slamari ci loolu ngay fekk ci bu baax a baax saa su nekk. Mhm. sa slam bi gis nañ ñu moom lañu gën a partagé. Mhm. xale góor yi moom la ñuy doxaanee temps yi <laughs> parce que man lii bi lañ la invité woon. def ko mhm. xale góor yi daal gi seen gel yëpp boobu lañ lay envoyé mën na leen bii may sa ko bi di bàyyi leen jàmbur a boobu laa Mm-hmm. nan la waaw boobu euh, lu ma lu ma dund la lu ma lu ma yëg la parce que li may wax rek man lépp lu ma bind ah, waaw waaw bu baax kay <laughs> ah. waaw xam nga am nga am nga lépp lu ñuy bind rek day doon loo xam dañ koo yëg mm-hmm. parce que dama naan tey nit ki bu fekkee da nga bëgg ñi ngay wax ak ñoom ñu yëg yow li ngay def foofu tey nga leen di wax dëggantaan li na ci yow waaye waxee ko d'une manière boo xam ne tey buñ ko déggee dafay xaw a général ku ci nekk da ci da ciy mën a gis bu ci mën a gis boppam moo tax mu doon loo xam ne yëg nañ ko saa su nekk ñu koy bind génne ko nag joué ko jàppuñ ne woon sax ne xëy na dana neexee noonu waaye dañ bañ ko defee aussi nit ñi apprécier ko donc ñu yaatal ko bu baax a baax a baax a baax a baax donc mu am aussi yeneen yu mel noonu yoo xam ne dina ñëw incha allah ndax bëri na yu mel noonu mais boobu ban retour waaw retour yi bëri nañ ndax nit ñi apprécier nañ ko donc à chaque fois aussi ni dalay message ba tey jii sax da ngay jékki-jékki kenn ñëw xam nga euh, partagé ko fenn donc identifié la ci donc nga gis ne a chaque fois affaire mu ngi mu ngi gën dem te nit ñi aussi euh, maanaam génnul benn yoon rek ñu fàtte ko mais ba léegi xëy na nekkul single nekkul clip émission la woon rek comme comme yeneen émission yi mais après nit ñi ñu ngi koy téye di ko consommer ba léegi di ci yëg seen bopp mhm. donc juste pour euh, rek wane ne tey xëy na mbind mi moo am solo wala gis nañ ci seen bopp wala jamono moo toll ci foo xam ne mbëggeel moom saa su nekk eh, ku nekk nga koy dund donc waral ku ko déglu rek da nga ciy gis sa bopp bu baax a baax a baax ndax doo boo boo xoolee sa waykat yi moom ñëpp ci mbëggeel la ñuy la ñuy la ñuy woy léegi donc parce que jàpp nañ ne gën a soxla loo xam ne tey apporté nga ko de plus ci slam waaw euh, je pense que mooy sama style bi nga xam ne moom laa moom laa yore parce que euh, bi may dugg ci slam aussi dama def ay gëstu donc xool ku ci nekk style bi nga xam ne moom la yore ñi nga xam ne ñoom laa fekk ñu yore ay style yu nice mais man dama ne aussi du ma ñëw toppandoo nit waaye xëy na am naa loo xam ne maysa la bu ñu nee maysa da ngay am benn idée ci maysa donc ma ne man loolu laa bëgg mu doon loo xam ne dama koy indi teg ko jéem koo màggaale donc indi lu bees loo xam ne nit ñi xamuñ ko woon parce que comme waaw comme tey boo xoolee ci côté écriture bi donc c'est nga gis koo xam ne dafay bind wolof bu set du ci dugal français donc gëmloo nga nit ki ne tey loolu mën na nekk ak aussi rime yi souvent slam dañuy bind lu bëri mais euh, du bëri tellement ay rime te rime aussi bokk na ci li nga xam ne dafay attirer nit ki ci tey mu déglu sa sa son en plus mélodie bi da ciy dem bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. alors euh, dañ da nominé waat. Mhm. ci ci beneen compétition peut-être nga mhm. ñëwaat ñu ñëwaatal ñu si compétition bi. waaw euh, mooy li ma nekkoon champion du Sénégal slam poésie. Mhm. donc war ko war ko représenté ci compétition africaine ne pays pays yu bëri dañ ci dañ ciy bokk ci nekk a am aussi représentant. ah bi champion Sénégal nga woon ma naan Afrique kon dama a dem Afrique rek. très <laughs> noonu la <laughs> xam naa moo noonu la war a demee incha allah rabbi ci lañ nekk di ko waajal donc. mu war a commencé juillet ba ba novembre incha allah novembre 2021 mhm. donc lépp ci ci biir compétition bi lay doon mais Slameur kan ngay gën suivre kan ngay gën a xam ne nag euh, dina la motiver di nga ko xool mu motiver la woon peut-être mm, pour nga gën a waaw Slameur yi dama leen di suivre baax a baax a baax ñoom ñoom ñëpp donc surtout ñu nekk Sénégal ñu def lu am solo donc jëwriñ ji nekk ki nga xam ne aussi bokk na ci ñu ma inspiré ci côté écriture wolof bi donc tax na ma gën a gëm ne silam wolof mun na nekk parce que bi may doog dugg ci silam dama jàppoon ne ci français rek moom lañu moom lañ war di bind mais après bi ma ko découvrir xam ko donc ci laa xam ne dëggantaan ndeke silam aussi mun nga ko def ci sa ci sa donc même à l'extérieur aussi am na ñoo xam ne leen déglu ku ci mel ne ay grand corps malade ku ci mel ne ay Kerry James même bu fekkee ne aussi moom rap lay def mais rap la boo xam ne mën nañ ko considérer comme slam parce que style yi xaw lu ñu nuroo bu baax a baax a baax ak ñeneen ak ñeneen mm-hmm. mais si loolu comme ni ma la doon wax sànq slam bi xawul a dox fii au Sénégal trop euh, est-ce am nga ku lay jàppale loo xam ne euh, tey di nga ko mën a gën a évoluer. waaw euh, slam bi am na ñoo xam ne ñu ngi ci ñu ngi ciy jàpp. parce que benn invitation yi bëri na ci côté slam peut-être dafa amul visibilité bi war. Ah, ñu ngi waaw ah, invitation yi bëri ci côté slam. Ah, peut-être côté réalisation moo xaw a des parce que tey ni nga gisee yeneen aar yi gars yi di réaliser ay clip muy jàll ci chaîne yi bëriwul tellement ci côté slam moo tax peut-être visibilité bi xaw a manqué mais gars yi xam nañ leen ñu ngi leen di invité ci ay panel ci ay concert ci ay conférence donc yu nekk slameur yaa ngi dem en plus am na aussi benn ligue sénégalais de slam poésie boo xam ne mu ngi fi te Omar Ben Khattab aussi moo ko jiite donc ñoom aussi ñu ngi soutenir slameur seen ay événement donc muy loo xam ne bëri na aussi yeneen structure yu fi nekk yoo xam ne ñu ngi jàpp ci événement yi ci côté partenariat ci côté sponsoring donc ak yeneen ak yeneen mhm. parce que mu ngi fi mu ngi fonctionner mais visibilité moo xawula moo xawula am tellement ci côté bi côté réalisation mais gëm naa a a ci liggéey lu am solo sànq début bi yaa ngi remercier sa label est-ce que da am kenn koo xam ne. Mhm. da nga label boo xam ne lay jàppale ci li mhm. waaw muy muy impossible impossible prod. te JP JP JP yor ko donc mhm. ci laa ci laa nekk donc ñu tàmbali di liggéey liggéey bu am solo donc te ñu ngi ñëw ak ay projet ñu ngi ñëw ak ay affaire yoo xam ne dina yéem gars yi bu baax a baax a baax incha allah peut projet yi nga ñëwaatal ñu ci loo xam ne nag di nga ko def comme réalisation est-ce que mën nañ mhm. xaar say clip xaar sa album wala mhm. loo xam ne tey dinañ xam ne Meissa mi moo produire ñu ngi ci ci projet album te avant album bi dina am événement yuy am mhm. dina aussi single yoo xam ne dina génn même clip yoo xam ne dina génn récemment yàggatul yàggatul dara donc ba ci benn concert boo xam ne ñu ngi koy waaj te Linguère lañ ko bëgg a parce que foofu la ñu jógee suñu mooy suñu base bëgg a tàmbalee ak benn concert boo xam ne le 14 août bii lay doon incha allah xam naa si walaguñ ko mais fii lañ koy jaarale muy le 14 incha allah donc di ci woo peut képp koo xam ne rek mu ngi mu ngi nekk Linguère même ku nekkul bii Linguère te gëm ne aussi war na ci mën a participer incha donc ñu ñëw ñu yaatal ko donc wane li nga xam ne mooy slam wane li nga xam ne ñu ngi koy def wane aussi liggéey bi nga xam ne tàmbal na ko ak tàmbali nañ ko ak suñu ak suñu label impossible produit incha allah euh, su ma la doon laaj ci ni batal noonu ci islam bi. na. waaw bëri wax mhm. kii wax après. Mhm. Euh, su ma la doon wax kan ku gën siiw ci islam yoo xam ne yow da doon da bëgg nga rêvé. Mhm. bokk ak moom euh, seen. bokk ak moom seen waaw islameur Sénégal yëpp bëgg naa bokk ak ñoom seen mais aussi bëgg naa génn mu bañ a yem Sénégal génne suñu langue génne aussi suñu culture xool yeneen langue jaxase ko. donc ku ci nekk aussi ñoom aussi ñi ci biti xam dëggantaan li nga xam ne ñun aussi moom la ñu yore ku ci mel ni Kerry James aussi bokk na ci sama rêve man ma def ak moom slam bokk ak moom scène parce que aussi mu ngi ci milieu te mu ngi ci def moom solo. loolu moom bëgg naa ko mm-hmm. ay artistes yoo xam ne tey Sénégal te dañuy way wala kii nga bëgg intégrer su ñoom wala nga invité leen ci waaw xanaa côté rap xam nga man nag dama bëgg rap. c'est laa meur là mais dama bëgg rab quoi surtout Peuposa. waaw euh, Papa moom artiste la boo xam ne film ah, naa ko ah, parce que moom côté écriture moom daf ci daf ciy def lu am solo moom it mu doon ko dama koy suivre bu baax a baax a baax mm-hmm. donc di apprécier li muy def donc di ci di ci bàyyi xel bu baax a baax moom it bokk na ci ñi nga xam ne xëy na bëgg naa ci ci kanam tuuti liggéey ak moom ci lu ci lu jëm ci loolu mm-hmm. mais amul amul ay concurrence parce que yéen dama leen gis ngeen xëccoo dara. <laughs> non cela moom cela moom benn benn benn famille la. Hmm. parce que boo xoolee lu ci ëpp ay ay collectif la donc ñooy bokk même activité ñuy def donc souvent sax. c'est leen sisante noonu. Eh waaw non seen i mots. <laughs> non yooyu moom <laughs> non yooyu moom amu ci quoi parce que ah. boo hmm. que récemment rek Dalal Salaam génn na benn livre tuddee ko avocat boo xam ne slameur yëpp ñoo bokkandoo donc bind ko donc des fois gis ne ay collectif la ñooy bokkandoo même événement yi ñuy organiser donc donc ànd ci donc euh, rarement sax nga gis benn slameur bu jóg jël initiative boppam ne moom mooy organiser concert wala mooy organiser festival mhm. souvent da koy def d'une manière d'une manière collective nga xam ne ñeneen dañuy ñëw ànd ci comme ça ñoom ñëpp ñu bokkandoo def ko ah parce loolu ci lañ ci lañ ci ci lañ ko tàmbalee donc mhm. noonu lañ ko fekkee moo tax ñu itam ñu ñu ànd ci ci mouvement boobu mais aussi war ci indi loo xam ne dina xaw a dina xaw a wuteeg loolu muy lu bees ngir gën ko a fan si mën nañ ko xaar. waaw réseaux sociaux yi dama dañ lay topp de. <laughs> xale yi solo ñu waaw gars yi ñu ngi ñu ngi gars yi apprécier bu baax. a baax a baax affaire yi. Mhm. waaw parce gis nañ ci seen bopp mooy li wax rek ndax nit ki moom boo koy jox loo xam ne soxal na ko rek saa su nekk dina la topp te it surtout bu amee bu amee amee njëriñ ndax mag ñi aussi bu ñu demee ba ci gis seen bopp c'est parce am na am na solo bu baax a baax a baax te du jeune yi kese mag ñi tamit ñu ngi koy ñu ngi koy topp donc li ñuy waaj mooy ñu ngi waaj clip donc ñu ngi waaj aussi concert euh, le 14 bii nii incha allahu rabi donc ñu ngi waaj aussi yeneen activité yoo xam ne dina ñëw ci kanam ak benn benn album donc ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax a baax te dinañ ko gis léegi léegi ak compétition bi nga xam ne ñu ngi koy waajal donc juillet ba ba novembre war représenter Sénégal donc ñëpp ñu ñu def ci ñaan su ko defee ñu dem jëli coupe bi indi ko incha allah. prévoir nga def yoo xam ne en français la wala yeneen langue waaw bien sûr parce que bàyyi yeneen langue yi parce que dañuy gën a permettre ñu am ouverture bi mais balaa boobu aussi bëgg nañ wane ne tey xëy na li ñu mën a def ci yeneen langue yi wolof aussi mën na ko te fi yeneen langue yi yegg aussi suñu ay làkk aussi mën nañ ko parce que loolu bokk na ci combat bi nga xam ne ñu ngi koy mënee ci côté slam bi parce que tey boo xoolee euh, langue française poésie bokk na ci li nga xam ne xëy xëy na moo tax tey mu am doole bi mu am donc moo waral ñu itam ñu ñëw pour def la même chose ci côté wolof bi pour gën ko mën a yaatal nit ñi xam njëriñ li xam aussi ne làkk yu làkk yu neex la ñu am ko mm-hmm. euh, peut-être euh, mës nga slam nga dàkkante ñu benn anecdote rek mës nga def fenn nga toog fa ñu invité la nga slam mm-hmm. wala nga tasante ak nit si nit mu jooy. Mm-hmm. sa slam touché ko ba mu jooy ko wala. est-ce que mës na la arrivé benn anecdote boo xam ne yow dootoo ko fàtte. waaw euh, anecdote nag souvent mu am ci ay mots yoo xam ne ñu ñu koy bind. donc euh, saa su nekk ñu koy jot nit ñi ñu wax seen cofeel seen yëg-yëg ci li nga xam ne ñu ngi koy ñu ñu ngi koy def donc muy loo xam ne ñun itam dañ koy yëg parce que nit ki moom li ñuy wax rek lu jógee ci xol ci xol lay jëm donc moo tax saa su nekk bu ñu gisee appréciation yi dañ koy dañ koy sentir bu baax a baax a baax a baax te itam euh, dama naan xaw nañu bett tuuti parce que jàppoon nañ ne balaa affaire yi di xaw a am benn benn visibilité bi il fallait que peut-être ñu def ay réalisation yoo xam ne xaw na xaw na soli tuuti mais jàpp ne woon ci ay émission lay jaar fii lu mel noonu donc muy loo xam ne aussi xaw nañu bett ak nit ñi niñ ko niñ ko bëggee donc ñu jàpp ne aussi comme que déjà ak noonu nit ñi bëgg nañ ko xëy na liy ñëw bu bu taxawee rek dinañ gën a gis ne tey tey am na am na lu am solo loo xam ne mu ngi ci biir te te ñoom dinañ ci gis seen bopp baax a baax d'accord xanaa nga mayaat ñu islam amour bi nga def ni ñoom tey dinaa bind waaw ay ca fóot mi yàlla ko sumb suñu ànd lu dëggu la sa taaru xol du lu ma ump aw ma dara teewul nga bëgg ma jagal nga sama dund sa yiw a tax ma sopp la jëlee nga ma ci und fowee la taxul ma topp la ubbil nga ma say bunt jikko yu rafet a ñu boole saf ci lépp lu may dugg suñu mbëggee la bari doole sonn nga ci man bay fudd sargal la lay wut jaloore man ak yow ba mébét yi antu yëg naa ne aras la doore li ma lay wan doo ci gis gàntu biddéew sax ñoo koy nuróole laajal sama xol lii du bëggantu gëtu ki ñaan néew na fi doole lu taq ci man bés bu ne yaa ngi faxas lu tilim ci man doo taay ci di ko raxas yaa ma gënal bànneex nga ni ma lu tax ma ne la danga muus taaru teg ci bëri cas ax say gët di tàq gënal nga ma gittax tax duma la wiccax mbëggeel dafara tax dama naan la caax ne cabax sama toolu xol gàncax yëg-yëg di jax xel dékku cax saa su ma meree nga raay sama kawaru bopp ma ree <laughs> yow it nga ree taw féex baawaan saxal mbégte yemoo ci yëngal ma yaa ngi may xamal yemoo ci bëggal ma yaa ngi may ormal yaay sama urul ay ni sama jinjeer sama sineebar nga may saf malayka nii weddi la janeer xalaat di ma feebar maak yow ba alxayri fi nga teebul ko bàyyi di nga móoru sëy si sëy si ñu ànd fee ci géeju bànneex sëy si duma la dóor saaga war a yen lu diis maay sa góor sa saaba yaay sama miis ñu wattu lu xóor topp caada àndi tër xiis yaa ma gën a li gën ci man li gën a jag ci man ndax yow rek laa am man képp nga xam rëy du garab féexalul xol kon su ma la tooñee urul ay ni baal ma mbubb sëy laa bëgg ñu ànd sol kon faw ñu yaatal lépp labat la dund ak yow billaay caagiri la tënkee nga ma bànneex iri ma fu sama xol méttee nga firi ma kon bu la neexee urul ay ni diri ma yóbbu ma fu neex a neex a neex wéri wéri ma ma topp sa ginnaaw yokku taar ci sa rafetaay boo dee ànd jàppal ne maay cuuraay duma wàcc sama ànd def naa la sama njege naay soxlu ma beneen ànd ndax yaay sama wettalikaay li may wax bu neexee sa xol nanga ma rey billaay waaye bu neexee ba doy la wettalikaay dee ma raay wallaay salaamaaleykum. <laughs> kii Ablaye bu dagg <laughs> eh, di leen jaajëfal ci ci invitation bi donc di leen remercier encore une fois di remercier képp koo xam ne teewlu na waxtaan wi ak euh, sama staff. ak waa Jolof ci seen soutien ci seen taxawaay bu baax a baax a baax ak sama label Impossible Prod ak képp koo xam ne rek mu ngi safoo li ñuy def bu baax a baax a baax sama copain slameur yëpp donc maa ngi leen di jaajëfal di leen wax ngeen xaar projet yaa ngi ñëw incha allah. Mhm. d'accord merci beaucoup.